mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy naafila euh, bu ñu rukkooyee duñu siggi ba taxawaat dañuy daal di daanaka ci rukkoo ba rek rot su jóot mu laaj ba xam ndax julli naafila daa am ak ak nangu loo xam ne julli farata nangu ko ci mel noonu waaw farata ak naafila ñooy am ci yooyu farata yooyu nga xam ne dal ak yemoo nga xam ne farata la nit ki bu rukkooyee daa siggi waa ba taxaw jonn bu sujooti daa war siggi ba toogaat nojju yooyu farata ak sunna ñoo ci yem njuumteel nag am ñu koy def waaye jullit farata ak jullit naafila ñoo ci yem jullit farata ak naafila leen wutale moom farata laa war boo waxtoo jotee te foo ko da ngay am bàkkaar naafila nag waaye soo xasee kàbbar nag àggale ko ci niñ ko santaane da war àggale ko ci niñ ko santaane xëy na am na léeg-léeg woyofal yu ci am ci ci ci ci ci yoo xam ne boo ci juumoon ci naafila ñu jéggal la ko te bu dee fa bu dee farata nga war koo jotal yoy rek mu am waye bu dee farata yi nga xamne nak farata la ci julli ci julli ci boppam yoy mom farata ak la ñoo ci am dañ ko wara matal sekk ben nga julli julli gu te ko ci yoon matal rukkoo koy matal sujjoot yi taxawaay ak dal ak yamo lepp ñew wala nga gis ne da nga da nga tay wala da nga son nga bañ a julli waye daf lo xamne ni buñ ko xolé du doon julli du doon dara danaka lolé julli da ko wara moytu wallahu taala alam. mbokk mi laaj yalu ndax day laaj yëngal aw làmmiñ wala man ngay jàng cim xel rek yalu bu dee ci jaamu yàlla muy julli wala zikar faw day ànd ak làmmiñ bi yëngatu loolu moo tudd jàng mooy jàng ndànk amaa nag li ñu tuddee alxiraa saamita nga xam ne sam xelay jàng waaye làmmiñ du yëngatu loolu xëy na kuy liir ay téere ak yu mel noonu lañ koy digal nga xam dana ci mën a liir lu bari te du sonn waaye njàng mii nga xam ne jaamu yàlla la moom faw làmmiñ yëngatu mooy ngay nga xam ne ki jàkkaar la yow day xam ne yaa ngi wax dara sa kàddu nag moo jowut yàlla kawe am na am na yàlla gu suufee yàlla gu kawe ki sës ci yow day dégg li ngay wax loolu xeetu yàlla la waaye bu fekkee yow yow déggoo ko wala kenn déggoo ko loolu mooy yàlla gu suufee waaye nag ku jàkkaar la yow gis sa sa gémmiñ di yëngut mu yëng ne yow mi am nga lay wax loolu mënu ci ñàkk bu dul loolu rek tuddul jàng wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na da doon julli tisbaar waaye juum ñaar rakkaay yu mujj yi mu jàng ci faatiha ak saar nga xam ne Faatiha rek la ci waroon jàng waaye bu ci nekk mu yokk saar muy laaj kooku bu xam luy àtteem euh, dara waru ko yokk aw saar ci ñaari rakkaay yu mujj yi du waral dara waral dara waaye nag sib nañ nit ki tay di ko def kon bu fekkee njuumte la moom dara nekku bu fekkee yaa ko nag defu lañ sib waaye nag dee su ko de dee su def dara wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa toogoon ci barab nee na ab kël bu ñëw ko laal ay yéreem ndax yéree mën na ko julliwaale waaw kël bu du sobe laal la ci barab bu fekkee moom taxul sobe laal la du tax sa yére taq sobe kël bu nekkul sobe euh, dañuy wax ne lépp luy dund rek lu laab la nga xam ne laal jaram bi taxut mu nekk nga ne laal nga sobe doonte jëm ji lekk ko day araam masalan mbaam kër yi lekk leen aram na waaye taxut na mbaam mi jëm mbaam nekk sobe ba nga xam ne boo laaloon mbaam rek lañ wax ne demal demal demal nga raxasu déedéet yi dund yëpp yu laab lañ wallahu taala alam waaw mbokk mi laaj soxna soo xam ne tànkam day metti nee na jox ko garab goo xam ne gare su gaynde la mu di ko diw ci tànk bi nee na nag moom loolu tax na du mën a xëy suba teel di jàpp day bàyyi ba naaj mu ko mën a raxas door a mën a boole buy julli tisbaar mu julli suba ak tisbaar euh, gare su gaynde de bu fekkee gaynde gi rendiwuñ ko kon sobe la fajoo sobe nag dañ ko doon tere ci lislaam islam daa waxoon ne na ngeen faju waaye bu leen fajoo lu araam bu dee nag ci mësab Malik bu dee loo xam ne dañ koy fajo ci sobe soo xam ne ci sa kaw la yem nga xam ne dañ koy diw ci kaw bu doon lu ñu naan moom dafay araam bu dee lu ñu diw ci kaw yaram nag wuute am na ci am na ñu ne bu leneen amut dagan waaye boo amee leneen lu mën a faj bu fekkee beneen frotté boo xam ne dañ ko defaree lu baax la lu te mën a faj moom wëratuta jëfandikoo frotté bo ak gën gum gën a baax wër tax mu di ko jëfandikoo te leneen lu man a faj ne bu ngand amon nak bam mu di ko jëfandikoo su fajar jotee warna def pexé mu ne ngir dindi ko dañ ndax julli ci waxtu kon bu fekké né bu tangalé ndox da nak man a bam set day tàngal ndox bu tangalé ndox raxasu euh, raxasu ko ko ko set mu japp julli waaye du layu dindi ko moo tax mënta julli nak bu demoon ba am gant ci man mënu ko dindi da koy wacc bo day julli day julli wàllu sobe si waaye waxtu bi mu ëtt bàyyi muy jàll te julliwut kon benn mën ko dindi dindi ko julli ci waxtu yi su ko mënta dindi mu walé ko wallahu taala alam mbokk mi laaj né nak kuy japp wala muy sangu farat ndax soti ndox mi ak bomb gi dañuy wara and wala waaw ben ñu and wala ñu sësalo bu fekke da soti ndox mi ba ndox ma jall mu bomb a bomb tu kon bomb ben mu nek lu melni ne rëbina ndox mi soti muy bomb wala mu soti gaaw bomb bala ndox ma jall jall waye bu fekke da nga soti ndox bàyyi ba ndox mu wacc nga dor bomb loolu bu nekatul bomb loolu masaa lay tudd waaye bomb gi moom day ndox mi dafi nekk ngay bomb wallahu taala alam mbokk mi laaj na ne kuy jàpp bopp bi dañuy taamu mu set wala masa waaw masa noonu la tudd dañ koy masa ak i nopp ci njàpp mooy da ngay tooyal say loxo raayale ko ndox mi boo ko xasee raay mu jàll dem dellusiwaat rek loolu la ñu sant waaye néewut dañ koy raxas ba mu set bu doon set raxas lay waaye jàpp du ci raxas bopp dañ laa sant nga masaa ko ay nopp dañ laa sant nga masaa ko yeneen ciir yi nag lañ lay raxasloo wallahu taala alam mbokk mi laaj luy àtteeb góor gu jàpp ba noppi laal jigéen waaw bu fekkee ne laal gi de laal yaramu la ci jublu laal gi moom benn jublu ci dara daa dajee ndox daje moom bu fekkee da koo laal te jubluwu ko woon te amu ca bànneex loolu dara nekku ca ni kii dox mu yàgg rek nga daje ngeen ngeen seen yaram laalante ci lu dul ngeen jublu ko te ba laalante amee yégoo ci benn yëg-yëg kooku yàqutum jàppam waaye bu fekkee daa jublu woon bànneexu bi koy laal bu ko xasee laal njàppam toj na moo xam am na ca bànneex wala amu ko ca su ko laaloon it am ca bànneex doonte jubluwu ko ci woon ba tey njàpp kon daal ñaar yi lu ci am jublu bànneex wala yëkke bànneex lu ci am rek jàpp ma tëj fekkee benn amu ci nag jubluwu ko woon te wam ko laalee di yëgul su boobaa jàpp ma tëjut wallahu taala alam lan mooy njàll ci sariyaam ndax jaxasoog jigéen ji wala foo moom bànneexu ci moom te jaxasoo amul ndax duñ ko tudde njaaloo njaaloo mooy góor ak jigéen ñu jaxasoo te buumuk say doxul seen diggante ba ak moomeel di am moomeel doxut seen diggante loolu moo tudd njaalo waaye nag suñu borom dafa tere njaalo ak jege njaalo terewul njaalo rek wala taqrabu zina la jege kon yi ko jiitu yëpp mën koo jur dafa bokk ci yi tere kon di di ak di wéet ak di xool ngir bànneexu ci jigéen joo xam ne jaamur la ci yow yëpp yëpp dañ koy tere wallahu taala alam mbokk mi laaj nee daa dégg ñu ne lislaam day tere ñu dugg ci néegi jigéen ñi muy laaj doom nuñ ko war a dégg waaw de góor daa wutiwut dara ci néegub du yaay ak moom fa soxla jigéen joo xam la ci moom koo xam ne lislaam dalay tere nga nuyu ko doo ko wuti ci néegam wallahu taala alam dañ ne la théâtre luy atteindre l'islam bu fekkee la ñuy théâtre dañ ngir yaate la ngir yoon nit ñi ci leen soññ ci mbaax wala leen moytu loolu bon te deful ci loo ma lu xaraam maanaam amul ci biir nañ koy suyee noo xam ne lislaam la koy tere su ko dara nekk ci bunt la ci bunt yi ñuy jàngale moom bu fekkee dañ ci wooteeg bon wala ñu di ci saboote lislaam wala ñoom lislaam wala ñu di ci jëfandikoo ci biir lu araam bu baax day nekk lu xaraam lu jëm ni théâtre mu araam waaye dafay boobu mën naa tax mu dagan mën naa tax mu mu araam wallahu alam mbokk mi laaj ne la ñaari way dencante yu jokkoo ci appel vidéo neena kenn ki di xol awre moromam ba ban yëg ci banex luy atté lolu yoy day jadu islam bo uri suko def ben jumtu yu ñu jokkoo kenn ta wax ne ñom ñaar dong ñoy gisaw rek ci ay jumtu la yu na ci loxay ñeneen yo xam luñ bëgg té mën nañ ko té te kenn ta garantie sax ne ndax jaarut fenn dañ ci ko fa mu do ñëw ci ñom te lolu wan sa awra keneen ab julit daganti moom mukk li ci des sa ñaari way dañ ci ci bop nit ci boppam xool awray boppam ci dul ngànt dañ koy tere bokkul ci tegin lislaam gis sa awra ci dul ngànt wallahu taala alam mbokk mi laaj ne jigéen joo xam ne dafa bëgg di jàng alquran ak di zikar di ndax dana mën a muuru boppam ak yaramam ko baaxoo muuru bu waaw wird ak jàng jigéen ji muuru bu nekkut ci ay jàmbur bu nekk ci néegam moom njabootam moom muur boppam yëpp nekkul nekkatul ab sart ci moom mën naa jàngal xuraan sax te fekk muuru boppam rawatina mu fekkee da caa lor da nekk ni kii mu barab bu tàng loolu allahu taala alam mbokk mi laaj nee na ñoo xam ne ak gone goo xam ne baale wut da leen a jiite jullik farata muy laaj luy seen atte loolu dëgganut ndax gone googu julli gi waru ko kum jiite farata julli ga baaxut kon faaw ñoom ñëpp dañoo war a julliwaat bu doon naafila nak mom bu len ko jité mu dagan donte sax nak tamuñ ko waye bu fekkee nak xeyna amna lu na ci mom xeyna gëna wattu alquran ba yu mel non tax manis na ko jité su boba waye doonul sax luñ taamu nak wallahu taala alam mbokk mi laaj neena ku seen nit muy julli mu kàbbar mu daldi di ci ginnaawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay kisbar wala bok day julli kisbar la bëgg wax xëy na julli ñan takay ci la xamé ne mom da doon julli tes ndax jullem nga dina wér ki roy ci mom jullem wër ndax da bok ci charte roy ci masab bi ngeen bok jullu bi ngeen julli te mom day julli tisbaar yow nga julli takusaan xëy na sax du fay ndax waxtu tisbaar jeexagut waxtaan bi moo jeex waaye dara jeexut bu takusaan jote kon day mi ngi julli ci waxtu waye nak ñaara julli yi bokkuñ wallahu taala alam mbokk mi laaj nee kenn nit kuy julli ndax bu sëlmalee day sëlmal ci ndeyjoor sëlmal ci càmmooñ kenn nit kuy julli benn yoon lay sëlmal ci wetu geesu wetu ndeyjooram tuuti ilimaan it benn yoon lay sëlmal geesu ci wetu ndeyjooram yéena ci génne ci julli gi ak nuyu mbooloo mi maa moom la ñuy sant mu sëlmal ñaar mbaa ñetti yoon dana sëlmal sëlmal bi koy génne ci julli gi muy geesu ci wetu ndeyjoor sëlmal ci kanamam sëlmal ci wetu càmmooñam bu fekkee ne am na ko fa nekk ku bokkoon ci julli gi te am ca lu mot ab waaye bu dee kenn kuy julli wala ilman ñoom benn yoon la ñuy ci seen wetu ndeyjoor la ñuy geesu tuuti loolu mooy masabu imam malik radiallahu anhu wallahu taala ahlam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ànd ak imam ñuy waaj a taxawal timis nee na fekk moom nag julli gu toon takkusaan muy waaj a julli nee na mu ne ko dangay waxtu wi waxtu julli dangay nekk ba julli timis ba noppi muy laaj loolu déedéet war si demee noonu de jullik farata amul waxtu saa ko nit ki fàttali ko rek mooy waxtu te it bu kàbbaroon sax di julli timis fàttaliku ne julliwul takkusaan da koy dagg dañ koy sant mu dagg ko bu dee imaam ak bu dee kenn ku julli bu doon maamoom rek la wax ne limaan da koy jéng na ànd ak limaan bu sëlmalee mu fay takkusaan julliwaat timis waaye ginnaaw taxawalagul moom wërta taxawal timis te julliwul takkusaan ba noppi wallahu taala mbokk mi laaj koo xam ne nee day dem terrain def di def football waaye day sol mbubb mu gudd tubéy ju gudd nee ndax dana am bàkkaar waaw dem terrain di football dañuy xool lu tax mu di ko def bu fekkee da caa jublu tàggat yaramam te it lënkaloo wut lu ñuy tare te it duxut digg mag ay farataam dëkkewu ko it def ko ak dundam su boobaa mën nañ ko jàpp lu dagan ndax tàggat yaram lu baax la waaye bu mu dox sa diggante say farata bu mu lënkaloog lu araam loo xam ne boo ko defee def lu xaram la su muccee ci yooyu mën nañ jàpp ne lu dagan la wallahu taala alam mbokk mi laaj xadis bi wax ne kuy fo ci li ñuy wax nar bachir mi ngi mel ne kuy sóob cuub loxoom ci yàpp mbaam am ak deretam muy laaj maanaam xadis bi ak ndax li doo ci loolu la bokk waaw xadis bi day wax araamal li ñuy wax nardashir nardashir mooy li ñuy wax nard xeetu fola yoo xam ne ay xeetu dam yi soriwu ko daal li doo yi mel noonu yëpp ci la dugg day wane ne kon dafa xaram ci ab julit mu di ko def bu dee ci mosa bu Maalik moom dafa xaram nard ak chatran di yëpp dañoo xaram kon ay xeet lañ doonte dañ koy def ci lu dul carte nga xam ne àndut ak carte nañ koy def di ko foree nii rek eh, ci mosab ma ne daganut ab jullit di ko def wallahu mbokk mi laaj nee na dafa am xeetu carte wu xew mu jàpp ne carte la match football yi am ci Europe nee na dafa am application yoo boo ci kiyee da ngay fay ay mille wala yu mel noonu di wax ni di way gàñe diw moomee bu gàñewut na nga perte bu gàñee nag mën nga caa gàñe dañ ci gañe ay xaalis ba nee a ñaar fukki junni ak lu ko féete kaw muy laaj loolu yu atteem loolu atteem carte la te carte moom daganut mooy alal ju juddoo daganut ginnaaw moom day joxe dara ngir jot lu ëpp loola rek carte la te du liggéey bu mu def du jenn jenn lu am njëriñ lu mu def bi ci wax lu wérut a ngi ndax lu ñëwagul nga at ne nii lay demee léeg-léeg mu doon wax ju dëgg joo xam ne bàkkaar lay doo jural nit ki ndax la nga wax ne noonu lay demee bu di demewut amul bàkkaar ne bu ñu demee it da ngaa tàndutu waaye la nga wax dara leer la ci ab jullit day moytu yooyu waaye xaalis ba ciy jóge moom nañu xam ne du xaalis bu daga daganu ci jullit mu lekk ko ndax su carte la wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na li ñuy wax teraanga Sénégal ndax dagan na nee na am na télévision boo xam da koy def nga xam ne boo wootee tànn benn raison lu nekk ci raison boobu ci xaalis ñu jox la ko bu fekkee ne moom miy woote dana fere dara de loolu cart la boobaa daganut saa bu xamee dana ñàkk dara moom door a jot ci la loolu mu tax mi woote carte la bu fekkoon nag woote bi lépp dara amul amul dara lépp gratuit la amul benn dërëm bu muy joxe bu muy ñàkk moom su waa day mel ne ñoom rajo boobu wala tele boobu ñooy maye dara di di tànn ñeen di leen ko may amma bu fekkee moom nag li muy woote dana ci ñàkk dërëm boobaa day carte wallahu taala alam Euh, mbokk mi laaj nee na foo ci lu mel ne baloot ak carte ak damier yu mel noonu nga xam ne du am xaalis waaye dañ koy fayee ni rek ci bëccëgu ramadan ak budul ramadan muy laaj luy àtteem waaw bu dee lu mel ne damier de moom li ci boroom xam-xam yi wax mooy dafa xaram moom li ñuy wax nar da nar da sur ñoom foofu lañ koy dugal borom risala waxoon na ne dëgganut nit ki di fo ci nard dëgganut muy fo ci dañuy wax ne yooyu fooy majuus la ku koy def yaa ngi dundal sunnay majuus yi nga xam ne ay jaamukati sawar lañ tax ñun dëgganu ndax xadis bi wax ne ku fa ci nardashir dañuy wax nardashir mooy nard dañu dañuy wax ne yooyu ay wureeg ay yooteeg ay dem yëpp ci buntu boobu lañ ko dugal dañuy wax ne képp kuy fooye yooyu yaa ngi mel ne kuy cuub sa loxo ci yàpp mbaam xuux ak deret beneen xadis wax ne képp kuy foo ci nard mooy na yàlla akub yonantam foofu lañ ko teg wax ne ñoom foyu aram la moytu ko mooy li gën ak budul ramadan nag ndax di sànq ak dund te njëriñ lu bari nekku ci ñaare wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nit ñoo xam ne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbër di waaj a bëre wala ñuy waaj a football di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba noppi daal di wër di laaj ay ndimbal muy laaj atam ndimbal loolu waaw fo moo xam ne fo mu dagan la de bu nekkee ci laajee ni bu la neexee joxe ndax kon lu dagan la su boobaa waaye bu dee fo moo xam ne dëgganut benn dëgganut ndax moom dañuy tere ko def wala dëgganut ndax lañ koy booleel yu bare ci fo yi fii nag bu yi fa muy dagana yi liñ koy booleel tax na dëgganut naa bari nañ koy defee fii dëgganut ndax njabar da ca nekk eh, yi ñaawee cay feeñ ak euh, waxtu yañ cay faat ak awra yi cay wuññiku yooyu tax na daganut daganut ci kon boobaa nag kenn waru caa jàppale ku yëngu kenn waru caa jàppale ku cay yëngu wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na xeeti nafsu a xam defal ko ci ak lañu wax ni moo am am am nafsul amaaratu bis suu mooy bakkan bi nga xam ne moom lu ban rek moom lay xalaat moom lay def bu ci topp den nafsul lawwaama mooy bakkan boo xam ne day def lu bon waaye nag saa yu defee lu bon ba noppi yàgg boroom nga xam ne daal day bari lu muy rëcc waaye nag day def lu bon saa yu defee lu bon nag dana rëccu di tuub waaye dajee delluwaat lu bon it moo ëpp ci moom ñetteel mooy am nafsul mulhama mooy bakkan boo xam ne day def lu baax def lu bon yëpp lay boole day def lu baax day def lu bon wa nafsin ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñett loolu mooy ñetteelu bakkan bi ñeenteel bi daan nafsul mutmainna bakkan boo xam dafa dem ba amuk dal xel ci lu baax nga xam lu baax rek lay def lu def lu bon day bañ lu bon lool waaye moom nag euh, saytaane mën na koo dikkal ci buntu naw jëf di wan lu baax la ñuy def naw ko ba mën a yàqule euh, loolu mooy naf mutmain bu ci topp daan nafsul raadiya mooy bakkan bi nga xam ne dafa àgg ci eh, topp yàlla topp yàlla gu mat sëkk yàlla topp yàlla gu eh, di yéeg nag jëm kaw di jot ci leer yàlla yi waaye nag lu baax li mu def moom ngir bëgg lu baax tax mu ko def eh, maanaam day jaamu yàlla daal ngir bëgg mucc ak bëgg am bakkan bi ci topp mooy almar bi ki nga xam moom day jaamu yàlla ngir yàlla dana kawe day jaamu yàlla ngir yàlla rek bi ci na da mooy kaamil la mooy bakkan boo xam ne sikk nañ ko ci moom lépp moom la ñuy tudde al arif billah moom la borom xam-xam yi tënk taala alam